tey ñi waxtaanee li nga xam ne tey mooy yàq koor gannaaw bi ñu waxtaanee conditions yi nga xam ne mooy dajee koor gi mën a wér waaye tey li ñuy waxtaanee tey mooy li yàq koor li yàq koor nag ñaar la bii boo bu amee nit ki dafay fay dafay kaafara waaye bii bu amee nit ki day fay rek yem ci bi nga xam ne day tax nit ki di fay di kaafara kaafara mooy sanction bu sanction bi ñu lay teg mooy daan bu ñu lay teg lu tax nag ñi ne nag la moo tax nit bu daggee ci weeru koor muy fay di kaafara ñi ne weeru koor dafa am xorma képp koo xam ne da ngaa dog ci weeru koor te yaa ko tey da ngaa xotti ormaay weeru koor xotti bi nga xotti ormaay weeru koor ci loolu lañ lay tegee ay daan moo tax ñu ne kon da kaafara su fekkee ne yaa ko tey li waral nag nit kii di fay di kaafara bu ñu demee ci yeneen ngéer yi ngéer ku ci nekk bokku cee gis gis ñoom ñëpp kii dafa gisee nangam kii gisee nangam ki gisee nangam waaye bu ñu demee ci ngee ngéer abu xanifa moom dafa wax ne yujabul qadaa wal kafaara amraani lii waral kaafara ba pare teg ci fay ba pare teg ci kaafara mu ne ñaari biir la mooy nit ki lekk walla mu naan ci lu ngànt loo xam ne sharia moo ko may amul benn ngànt bu ko may pour mu lekk wala mu naan mu dem def ko ci bëccëgu weeru koor te moo ko tey su boobaa dafay fay dafay kaafara mooy lan dafay fay su paree dafay oor ñaari weer su ko mënee su ko mënul mu goreel jàmbu jigéen su ko mënul mu leel juróom-benn fukki miskin loolu nag bañ a dog moo ko gën kon bokk na ci benn yooyu moo wax moom te mu ne bokk na ci tamit mooy nit ki fexe ba jote soxnaam ci bëccëgu weeru koor mooy mu seeg soxnaam. su boobaa dafay fay dafay kaafara am na ñu ne am na lu ñuy wax muqaddimatul jima nit mën na ko def ci weeru koor mooy làmbanteeg sa soxna wala ngay foo fonanteeg sa soxna yooyu wóorut lu tax wóorut parce que dañuy sukkandiku ci xadis na comme que yonente bi defoon na ko ak ay soxnaam kon nit mën na ko def mais yonente bi dafa wax ne laysa lastu ka hay hay hayatikum yonente bi dee na man yàlla li ma yàlla bindee bokkut ak ni leen bindee yonte bi moo gën a moom boppam yow su fekkee da ngaa mel ni am Baba Jaw wala nga mel ni am Sanex Caam su boobaa yow boo ko defee sax ba nga yàq sa koor te doo ko tey doo mën a contrôler sa bopp kon nag nga moytu lépp loo xam ne dafay yàq sa koor moo gën kon nit na moytu soxnaam sori ko ci bëccëgu weeru koor bañ a def loo xam ne day yàq kooram bis bu jot ak moom rek ba sëy ak moom nag su boobaa koor gi yàqu na su boobaa koor gi bu yàqoo du yem ci fay ko de mais daf ci boole li nga xam ne mooy kaafara mooy day or juróom-benn dafay or ñaari weer wala mooy leel juróom-benn fukki miskin wala mu goreel jàmbu jigéen te loolu yëpp dafa jafe kon Abu Hanifa loolu wax bu jëmee ci imam Ahmad ibn Hanbal dafa wax ne maa yujibul qada wal kafaara lii waral fay ak kafaara mooy al watu fi nahari ramadan kon andi woon na la imam Abu Hanifa andi moom nee na mooy nit ki soxna am ci bëccëgu weeru koor moom loolu la wax mu ne bu ñu demee ci imam ngir imam Malik moom lan la wax daf ne mujibatul qada mu ne lii waral fay ak kaafara mooy aljimaau wa ixraajul xayyi muctamadan mooy nit ki seeg soxnaam wala mu waccu waccu boo xam ne moo ko tey mooy dafa looju su boobaa nag dafay fay dafay kaafara walla nit ki jël dara jàlle ko mu àgg ci biiram moo xam mu jàlle ko ci gémmiñam wala ci bakkanam fu mën a doon te moo ko tey su boobaa day fay day kaafara karu yàqun bu ñu demee ci eh, kon ñooñu la ñeenti ngéer ne lañ ko séddalee kon nit ki li yàq kooram ñaar la mooy loo xam ne bu ko defee dafay fay dafay kaafara am na loo xam ne nag bu ko defee du fay du dana fay mais du kaafara mooy dafa dog dog boo xamante ni duut dowut moo ko tey soit mu juum def ko wala ngant dab ko su boobaa bu dogee day fay rek mais du kaafara kon loolu lañ sedd li nga xam ne moom mooy wàllu lu yàq koor bokk na ci tamit lu yàq koor mooy su fekkee nit ki dafa jëfandikoo lu da mel ni piqûre wala perfusion ba affaire bi àgg ba ci biiram kon su boobaa koor gi yàq na koor gi yàqu na su boobaa daf koy fay gannaaw bu weeru koor wi jeexee kon yooyu mooy li nga xam ne mooy yàq koor mooy ne mooy timit soccoo socc boo xam ne dafa tooy parce que boobaa mën na dugg ci biiram kon yooyu mooy yooyu mooy yàq koor ñu jox leen dox daje incha allah semaine bii di ñëw ñu wax lan lañ sopp ci koor